برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان nek ci timin nak ponk bu am solo muy liggéey waaye liggéey ba it taalibe ci buntu sëriñam dale nuyoo bi ci sëriñ bi alxalifa xalifa bàyyi ci ndukumaan di ko ñaanal yàlla wér di ko ñaanal yàlla wi jaax ak xabool gu yokk gu gën yaatu tawfiix ak taysiir di ndokkeel ñëpp ci liggéey bi ni ma ko waxee ci tàmbali di ci sante yalla it bu baax nak di julli ci yonent bobu sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne lepp mom la di wax ne dañoo wote won jëm ci fi uy ci bi rafetna uy ci nañ waaye uy ci bi rafetna yalla na fay ñëpp yalla nañ am barke yalla nañ am jamm yalla nañ am tawfiq yal nañ ànd ak jabar yu baax am ci doom yu baax yal nañ am wërsëg gu yaatu lépp ñu delloo ko ci yalla yal nañ yàlla tabaxal suñ kër yi yal nañ am yu suñu diina ñu ngor ñu jikko bi ñu si jëlee la na ne sax bàyyi anhu waxoon ne man su ma rek xam nga ne sëriñ bii loolu rek day def rek ngir jaamu yàlla comme ñëpp waaye wax dëgg yàlla sant yàlla da benn pertement amut Baye Laaji Baabu radiyallaahu taala anhu moo ñu doon wax nañu nawet day benn këll yalwaanu kaay la ci këll yi kon nag ñun bañ jiyee rek lañ góob léegi nag ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant dañuy dékk ay ndigal Aki nyan ñaan bàyyi ko ci serigne bi gannaaw bo xam ne ko muy bàyyi laaj sulay di porte parole bu rafetal wax deug yalla bu yaatal bu baye xel lu bari ñu diko ñaanal yalla Cheikh alhaji salum Ndaw mu ngi ni ba julli juma la ma Cheikh mustafa mi wax lu yaatu lu mu def ci liggey bi te ci lo rek la dekk ci xolam la koy defee ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp gërëm nag taalibe yi fu ñu mën a béye ko wax naa ko léegi suñ mbokk mii di Mouhamed Ndaw Sakir nekk ca Dakar moom rek doy na exemple ah yaakaar naa bu dikkoon ne maa ngi ci kilomètre séeréer maa ngi ci nangam waaye ànd ak suñu jarbaat aji si béy ko kebbe ñëpp def ko nag fu dëkk béye ko xam nañ ko gis nañ ko dama ko ci joxee rek ndeg moom la mu ko ca kon loolu tamit mbir la di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla maire ngi nii teew loolu sëriñ bi dina ci dikk luñ fàtte rek moom danañu ko dana ko wax te itam ñëpp suñ suñu xol ñëpp suñu xel dañuy soññaan na suñu bopp di soñ ñëpp taalube waxtu bu ñu ootee rek na xëy ji santaanee rek mu def yeneen ci nag wax dëgg yàlla ku gis melokaan wii xam ne ñëpp ñu ngi góorgóorlu loolu dal yal nañ ci yalla gëna xir lañu dalon ci suñu sëriñ ba lam daan wax buñu oté ootee bi mu né xamna ak ngeen di siyaare ci bàyyi ngeen di siyaare ci tool moy dëgg tay day ñun buñ ne ñu ngi tool bàyyi radiyallahu taala nu kenn duñu wax deet tool bàyyi lañ nekk wallahi la foofu buñu waxé ba nopi dinañ fatali né siyaare bi mu ngi ñëw siyaare bàyyi laaj babu ba buñ tàmbaloon ci 57 mu daw léegi mën nañoo wax juróom-benn fukki at yu teg ñu jàpp ko la onze janvier ci làmmiñu mboolem be daaru muhibbiina porte parole Baylaaj Souleymane Ba ak ñëpp fii ba bitim réew bés boobu daal xam nañ ko de yàlla moo ñu ko may moo ñu ko tànnal jox ñu ko ci làmmiñu Mawlana Cheikh Baye te mën nañ ci wax lu yaatu yal nañu mag ñi xam ne ñoo ko doon def ba mu agsi fii te xalifa bi yàlla yàggal ko fii gën a yaatal ooteem gën a yaatal poroseem gën ñoo jëriñ ci moom nangu suñu ñaan ci moom nangu ay ñaanam ci ñun tool bi nag mu ngi nii incha allahu dañ ci bëgg dellu si ci liggéey bu alxamesee bu alxamesee nañ ci dellu si liñ gasoon nañ ko naaf su boobaa nag ku nekk xam na naaf sareet yeeg furseet yaag la ca aju lépp waaye ñi li dess ci ngass mi itam ñu motali ko lool dal bu alxamesee ku nek renforcer hatal lo ci mëna doli ci li dikkoon nañ ko doli bu alxamesee insha allah ji di ñëw yalla ñu ko yàlla fekkeloo bu ben ngantam yàlla nangul ñuko ñu ngi yemale suñu kàddu fi déglu gaa yu bax yi ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi wax alhamdullilah rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñu nam ma ci rek yàlla dolli ñu ak njub ak ak texe yalla nañu ko yalla defal di ndokkel ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte lool ci xol gi ñu leen di xol ak mobilisation bi ngeen def biñ jubé tol bi rek la xol sedd booba daal buñ wàññee ko woon it yóbbaale xol bu sedd waye buñ waxuton dara yeen bu ngeen xolante it da ngeen naw seen bopp da ngeen gën a ñeme da ngeen bég kenn ku ne ci yéen bég ne ci ni ni nit ñi dikkee rawatina nag kilifa yi rawatina wootekat yi di wax ne du ma guddal sama kàddu lu mooy rek sant yàlla di ñaan yàlla it ndollan loolu lan li ñaan yalla nak moy mu baye ñu fi sëriñ bi fan wu gudd ànd ak wér ak mo defal ko bépp projet bu mu semb ak bu mu semb te té nag ñun ñëpp ñu féké ko ñi ngi koy ñaan yalla na ñu ko yalla defal su ko defee moom mu xam ko rek ñun ñoko ko xam kon yalla na yàlla nangul ñu mënuma ñàkk gërëm ñaar rek mu yobale ñëpp ki ci njëkk moy alaaji salum Ndaw wax dëgg yàlla ngërmaaneel xol lañ ko gërëmee man de mom la ko gërëmee holu nako ko nak ni sama bop naw nako hit, te di ko xel bu baax te di ko ñaanal yalla fu fum fu ak fu nek na japp ne duma ñaan mukk jëmee ci Cheikh Ibrahima te boolewuma ko ci ndax nit ku nek ko ndimbolem di baye ko daf koy bëgg nit ku nek fa ko wërsëgam di ko it daf koy bëgg te ndimbal la wërsëg la sopela soppe la itam bu wér hadina bi yëpp na xam nañ ko fi mu ngi koy ñaanal yalla fan wu guddu and ak seen hando bi yalla nay yok iman buñ ci reccu dara deug la dañuy def tawassul di ko wax ci suñu làmmiñ waye njabot ak alhaji salum Jaane duñ tasaaroo mukk dañuy gëna am ko leer dañuy gëna deugër buma joge ci mom di gërëm monsieur le maire alaaji Aliou Diané yalla hoyof lool nako ko lool hoyof xoyof lu na lool waye ku xam maqamay maire yeek pal yeeg ci na da nga xam ne diis na bu la yalla disale na nga hoyof ko hoyof hoyof lu ñepp lay hatan baat bobu mu xamee ko non ne ñepp lay hatan ji moy na ñepp lay bëgg gis nañ ko ci wetu Cheikh Ibrahim ci walu njabot bi waye ci walu administration bi mu nekk itam xamna ne mi ngi ciy diisoo waaye ne mi ngi ci baye xel bu baax waye ma xamal ko ne njabot gi rek daf ci am cër bu mu wara defer bo xamne yalla ko ko sedd ndax Cheikh daf daan ñaan ne lepp luñ soxla yalla nañ ko am ci suñ biir yalla buñu jéggi dara kon nak suñu démé ba xam ci suñu biir nañ yaakar lu ko hop da yalla bu la na la dolli kon buñ na la maire nga mangado, nga mangado ministre man nga do député man nga do président de la république di gërëm nak jawdi ñi nga xamni yépp baxé ko nañ ci dëkk yi mobiliser nit ñi ndax ku ne ba nga joggé dëkk ba nga ne waxé nga ña nga wara waxé ña mëna ñëw ñëw na ña mënta ñëw ngant la ñam kon ñi tam ñi ngi leen di ñaanal seen taxaway yalla na yalla dëgëral ko te yombalal leen ci wax ne ku ne xam ne ya ku ne xam na ne yàlla fi indi nit ñi waaye du meññetu gerte suñ ne woon gerte gay ka ñu ne sëñ bi de ren dana xam nawet waaye bi nit ñëwee na nawet nag ci waxin waaye bi nit ñëwee it dana ah, fii de waaye dara nekku fi ci saaxir waaye liñ doon wuti imaam wax na ko liñ bëggoon xam nañ ko yàlla def ñu digaloon ne bay leen waxut leen ne xam leen bay leen rek lay waxoon ñi bay nañ wàcc nañ moom moo xam ne muy def waaye xam naa ne moom lim ñu denc la ëpp lii fuuf loolu lu wér la ci ñun ñëpp wérlu nañ ci loolu sëriñ bi ma ngi gattal ñu ngi lay ñaanal yalla fan gudd yalla ñu jité daiman iman nañ ñu dolé doy yalla nañ la gëna bëgg mbëggel gi dafa am lu muy lu ñuy dimbalé moy fay tax ñu nangu suñu lepp yalla na yalla doli mbëggel yi ci barké alquran da fay xoyofal lu diis fay yobbu nit fo xamné fogu ton ko sax ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp goor ñi ak jigéen ñi nañu xam nak nag bu ñu képp ku dikko rek xam nga né dikko ñi dikkut it xam na né dikkuñ waye ñi dikkit bëggoon nañ ña dikkut ñi dikkit bëggoon nañu delsi yalla nañu ko yalla yombalal te taxalal ñu ko alquran karim barke yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam. ñi duma ma kenn waye ma ngi gërëm ñëpp dal alayhi salam ndaw ma ngi lay gërëmati di la sant mbooloom darul muhibina su may boo ne yaa leen gënal Cheikh Ibrahima ndax dañoo bëgg Cheikh Ibrahima nga bëgg ko ñu bëggaale la ci ba loo leen wax ñu def waxoon naa fi bes ne sëriñ bi waxal na woon na ko boppam fépp fu ñu teew ñun Cheikh Ibrahima néew fa su fa alaaji Saalum nexee waru ñoo def lu mooy déglu ko te xool ko te seet ni muy def mu ne siyaare sañ ci Galle Ngoné 17 février 17 waaw fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de février yàlla nañ ko fekkee jàmm yàlla nañu ci yàlla yóbbu yàlla na dàq mboolem guñ musa def yàlla na gën a xoom gën a sakkan yal na gën a barke barke alquran loolu moog siyaaram Ngodi ba benn la ñun ñoo moom yëpp nañ ca taxaw lépp nuñ ca war a taxawee nañ ko ca taxawee maa ngi gàttal bu baax sëriñ bi di la ñaanal yàlla fan wu gudd waan ak wér du ma dañ nag di la ñaanal wax naa ne mosumaa toog te li ma quatre fekk ci lal bariwut billahi la si laa ilaaha illaa huwa maa ñaanal sama bopp lu may Cheikh Ibrahima ne yow yàlla yal na nga xéwénal mbiram te xéwénalal suñ mbir yal na ñu ko téyeel yal na ñu ko yëkkatil ba àddina bi yëpp di ko gis ci lu la neex di ko dégg ci lu la neex yal na nga jubal mbiram yal na nga ko xéwénal yal na nga ko musal ci xéenaay bañ ak pexem noon yàlla bu mu xam noonam yàlla bu mu xam ay bañam salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah eh, ñu ngi nuyu kilifa yëpp di xamaa gàttal suñu kàddu rek ndax dëgg yàlla dañ fi ñëw comme taalibe rek comme ñëpp rek euh, ñee bu baax nag ñi jàkkaarloo ñun te nekk ci naaj bi ñu jara ñee lañ nag ndax wóor na ma ne ak wóor nañu bari ne ci liñ nekk noonu la waaw nit boo nekk ci mbir te mu wóor na li dëgg la loo ci góor góorlu rek du doy te ñun ànd bi ñu ànd ànd kook sunuy xalifa lolu ñun ñëpp am nañ yaqin ne lu dëggu la lu am cosaan la te lu am digal la aussi donc di feddali suñ kóllëre rek ci sëriñ bi ah comme lañ daan wax rek ñun mom lañ am insha allahu talibé nak nim bëgg mel daanaka du ko mel waaye yéene mo ci gëna am solo te am nañ yéene ci euh ci mboolu mim jité waye ci ndono gu dëgër gi nga xamne moom la taxawee mm-hmm. euh, ñun de sunu lépp moom la incha allahu rabbi keroog rek maa ngi koy wax ma ne man de bu ma demee retraite sax mm-hmm. moom ci wetam laay ne ndax euh, mu ngi liggéeyal askan wi liggéey rek mu am solo am na ONG mu ngi ci liggéey di jëriñ jaam yàlla yi te tegul ko ci tarixa tegul ko ci diine da ko teg ci nit mm-hmm. ci nit rek la ko teg te yàlla moo bind nit ñi te bëgg na leen euh, donc loolu rek atu bu rëy la déjà li ci des nag moom képp koo xam ne yaa ngi ci keppaaram moom doo bëgg a kook moom kon nag loolu moom ñun mu ngi ci suñ xol incha allahu rabbi suñu àndeek moom ci zaahir nii hmm. euh, moom lañ àndat buñ nekkee ci beneen zone moom mu nekk feneen aussi moom lañ àndat incha allahu rabbi maa ngi ko doon fàttali kerew ci gàmm gi euh, xam naa ne Malick Oustaz Malick yow Babacar da ngeen di taxaw ci taxawal coopérative waxoon naa ko il faut ngeen taxawal coopérative docteur directeur Mignane mii di xarit sëñ bi moo fi nekk ngeen taxawal coopérative ministère de l' agriculture foofu la jëm gis naa kilifa diine yu bëri yoo xam ne taxawal nañ coopérative ba pare euh, sëñ bi bés buy dajeek ministre bi fekk ma nga téyewaale coopérative am dafay gën a yomb loolu tamit laay wax ci sëñ alaaj Saloum di ko gërëm di ko sant euh, foog naa ne euh, Amadou mu ngi fi mu ngi koy dégg donc nañ fexe gis le directeur nu mu gën a gaawee ngeen taxawal coopérative foog naa ne loolu jafewut noonu comme am nga mbooloo mën nga taxawal coopérative su ko defee ñu fexe ab audience ak ministre bi su ko defee lépp luy mbay ci Sénégal te ñoom dañoo am beneen gis-gis ci mbay te ci coopérative lañ koy jaar coopérative Senghor moo ko fi indi woon ñu bawoon ko waaye dafa dellusiwaat loolu nañ ci gën a taxaw Baye sulee ñu ngi lay ziar bu baax ak mboolem kilifa yi fi nekk rek di ñaan yàlla may ñu fanu gudd ak wér géram euh, ngodi ba moom yàlla moo ñu dimbale rek yàlla moo ñu dimbale ngodi ba dafa ànd ak ndimbalal yàlla ngodi ba du géographie mm. képp ku bëgg ngodi ba rek yaa ngi ci biir waaw ngóori ba dafa am ki loolu na ko jeunes yëpp xam waay ñu gën a suñu dëkk bi hmm. gën a respecté suñuy kilifa ah donc loolu rek lañ ci doon wax di gërëm di sant alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ah, mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla de julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñëpp di siyaare ñëpp waaye da xaasal ci nuyoo bi ak siyaare bi alxalifa Cheikh Ibrahim Ba ko nuyuɗo ko siyara wayde ko dokkel wayde dokkel mbolami yoppunak siniki tawi min talibi ñoom ak dokk bi ñu yàlla dajalewaat ci pàkk bi ci kanam sëriñ bi ndax mën nañoo wax ne pàkk bi pàkk ab jok kóllëre la ndax kóllëre daf ñu fi andi waaye jak pak bi pàkk ab jokkoog mbokk la waaye pak bi pakap dindi na mant la mhm. waaye pàkk bi pakap siare hantala hmm ñi wat fi té deug deug kenn ku nek yalla mo la fi indi am mhm. amna ko waj bëgg ñew ta man ta ñew am na koo mhm. xam ne am bëgguta ñew ya xamul li tax bëgguta ñew waaye yalla dimbalé nañu bëgg nañu ñew yalla andi ñu ci mbaaxam ñi ngi gërëm da ah wax dëgg yàlla nag yàlla moom def na li ko soob jaami yàlla yi góor nañ ci tool bi ba tool bi tilimut waaye liñ ci bëggoon nag am na lu ci manqué sëriñ bi moom lim bëggoon mooy yëngatu ngir yàlla waaye taalibe moom la muy bëgg jëm ci sëriñam mooy bu àggee bu dara des ci soxla te tool bi dikkeewut noonu kon tool bi liñ bëggoon ci moom moom manqué le na ko waaye loolu yëpp ci loxol yàlla la nekk gërëm giñ ko gërëm nag ci suñ xol wax ko ci suñ làmmiñ mën naa tax ba lépp luñ bëggoon yàlla indi ko dabaatal ko ci saahir dabaatal ko ci baatin yàlla yàlla def loolu de gërëm ñëpp nag da ci xaasal jaww din yi ndax kat liggéey bu nekk mbir mu ne dafa am war a am ay waleen te ay waleen ju ne borom da caa war a jiitu kon su fekkon dur sen ak fagaru ci ni ngeen ay mana konon man na am mbooloo mi nu demee ni waye itam dalé ko ci man xawma ma lu yàllay dogal waye dalé ko ci man ñun ñëpp nañ gorlu ba bu mi ëpp ni matériel bi ëpp ni nañ ci gorlu ñun ñëpp nak ko andi wutoon matériel nga fexé ba andi ko kenn ko andona kenn nga fexé ba and ak ñett bu boobaa mbooloo mi gën a bëri beneen bi Baye Souleye dafa am lum wax li wax loolu yàlla moo ko gën a soxla te moom moo ko wax dafa wax ne nañu ànd ak sëriñ bi waaye ak bëgg yàlla moo ñu wax ci addisul qudsi yu kuntu kan san lam uharaf man de nekkoon naa de benn ndam boo xam ne kenn xamuma fa ahbabtu bëgg la wax yalla mune ne ma bëgg mhm. mune fa ahbabtu ana a'rifa mi ne fa xalaxtu xalqan fa bi yarifuni ma bëgg ñi xam ma ma bind am mbindeef ci mbindeef mom ci lañ ma xamee kon yalla bëgg mhm. ci la xamalé yëf yi kon ma yëgal leen né da yëgal sama bop ne bëgg ci la ñuy amee kër kër ji lum reey reey reey reey su fekkee xol bi xamatuwut bëgg mm. njëriñ du mëna am mm kon yalla nañu yalla war sagal ñu bëgg yalla nañu yalla war sagal ñu bëgg ta xam liñ bëgg yalla nañu yalla defal lolu te yalla war sagal ñu ndëriñal bëgg ndax li ëpp ci mbooloo mi la taxone yalla ne bëgg ci lañ may xamé ñu bari xam nañ kon li ci dess tam mi ngi ci loxom yalla na yalla fajj haaju yi yalla na yalla fajj haaju yi yalla baal ñu fi sëriñ bi déggande may ndam déggande talal ay waram te muy gën rafet te muy gën am ndam yalla yalla def lolu yalla yagal fi suñu khalifa cheikh mouhamadul mahi ibrahim nias mom ak mbollem jabotou bay damay wax toujours te am nañu ko sédé ma ngi and ak ñom damay wax ne barxaamu baye mbay dafa am lu ñu jangalon mu ne nañay ñaanal jabotou bay gi man la ma ngi ci am na moom lum ci joxewoon woon téeméer ab bismillaahi rahmaani bi ak fukk ak ñeent la wax naan ñi koy jox njabootu baay gi moo xam la may jëriñ ak lam ci jublu moom waaye daal nañ leen di ñaanal yaakaar naa cib jotaay sëñ Moustapha Sello nga ma wax ko ma ne xalifa bi nañ koy ñaanal am na lu ma waxoon ne nañ ko koy ñaanale nañ koy ñaanal dégg naa ci imam Hassan mu wax ne nit ki boo demee ba jàpp ne kii waratuñ ko ñaanal mu ne loolu moo di ne jàpp na ko kon sëriñ bi dañ ko war a ñaanal bu wàcc see fi ñun nidoog ñun nit la comme nit ñi xam soxla lool ndax say soxla soxlaam la soxlaay keneen soxlaam la te moom moo am soxla yoo xam ne sax ñun yëguñu ko kon nañ koy ñaanal te itam nag li nga bëgg ci sa xol ci moom mm-hmm. dëgg-dëgg am na loo xam ne yëngatu mënu koo maye waaye ñaan moo ko mën a maye kon nañ koy ñaanal te dafa am yoo xam ne nag moom ñaan rek moo ko mën a difaas kon nañ da ko ñaanal yal na yàlla may ko kaaraange yal na yàlla may ko kaaraange yàlla may ko defe naa sëñ Moustapha la ma leen waxoon fàttewu leen ko ko am loo cey dolli mën nga cey dolli waaye ku cee dolli sax na nga ko jëmee ci wàllu fàttu waaw na nga ko jëmale ci wàllu fatu waaye la ma waxoon moom ku ko cey liggéey jëmee ko ci moom ci wàllu kaaraange doy na sëkk yal na yàlla def loolu mu Lamer ñu lay gërëm gis nga ci magi taalibe yi sa baay ak bàyyi sëñ Malick mii laa ci jëkk a xam dëgg yàlla nga xam ne duuñ rakk duuñ doom duuñ mag ndax mën nañu wax ne kooku bokk ak moom moo ko booleeg moom ak nañ bokk moom waaye yow sabaay ak baay sëñ Malick mii sëñ Malick xam loo xam ne kenn amu ko bi ma ko gis ci kanam sëriñ bi mu di ko bindal dama yaakaaroon ne doomam la wax dëgg yàlla ñii ànd de tukki yow sabaay moo nekkoon àpparlooru sëriñ bi mm-hmm. place yu bari rajo amut fa te ci kàddum la ñuy déggee sëriñ bi bi radio amé ba téré da manki lu bari ci kàddu lañé ñuy mottalee dégg kàddu sëriñ bi bi ay groupe xamé isaas da manki ci kàddu lañé déggé déggee mottali ko kàddu sëriñ bi ndax yoy yëp dañé dem yag ñu fay légui le courant am té bobo mo nekkoon lolu xanalé mhm. ko do yor sor gi teg ci dëgg-dëgg lolu mom ñu ko sédal seedal mboolo bi ne ñaar ñi mhm. ak Omar Cissé mhm. ca sanc Mor Soxna ci taalibe yi nga xam ne santuñ ba ñoom laa njëkk xam ci way wetu sëriñ bi loolu nag neex nañu lool te it nag bi may dugg si ne jege bàyyi su ley fakk ker gële foofa nag yaa ngi koy tooñ ne filma ko waaye booba mi ngi wax xam-xam mu ne nañ wut barke maanaam ko barke mooy barkele alaaji aliou satu nag ci jaamal seen borom xam-xam ma dafa wax ne albarakatu lil mutabarikina mu ne barke daal ñu koy xam mooy ñu koy xuut waaye bay su leen barke daal ñu koy xam mooy ñu barke maanaa xam lu barke dangay ngay barke jàkk boo bëggee su njaboot barke da ngay góorgóorlu ci lay may barke lii may barke nag ndaw lu ne dégg ndigal bàyyi tere gis naa ci sëriñ bu yàggul rek ci téléphone yii muy wax ne bàyyi dee mos naa wax lii ba pare ba mu waxee ba pare daf ne yéen ñi war a dégg nag dégg ngeen bay Souley nag amna lu wax wax na ci Moussa le maire nu mel way way nañ ko fay njukkal xamna ñun ñoko mom lum soxla rek ñu soxla le ko ko waaw lum haaju rek ñu def ko alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. mu ne ñu ngi sant yalla bu baax. ci tawfiq gi mu defal ñu. ci tawfiq gi mu defal ñu ko ñaan mu saxalal ñu ko ñaan mu saxalal amin ya rabbi ci nuyoo bi kilifa yi di jiital ci nuyoo bi kilifa yi rawatina cheikh alaaji saalum ndaw rawatina cheikh alaaji saalum ndaw mbooloo mi mu àndal yëpp ak mbooloo mi mu àndal yëpp ndax ànd naag mbooloo mi yëpp ndax ànd naag mi mi la mi la ñu koy ñaanal li mu wax rek वेरगुसा ak tal ak man ak xam ci ko ñaanalit mbooloo mi lépp néew boobu mu ngi koy teg ci loxo Baye Souley miy porte parole bi di fi suñ baay di fi suñ baay jàllale ko ci ay magam jàllale ko ci ay magam suñuy baay jàllale ko ci ay rakam jàllale ko ci ay rakam suñuy baay nuyu taalibe yi. nuyu taalibe yi. te kenn la ci ñoom. te kenn la ci ñoom. teg ko ci loxo al imaam. teg ko ci loxo al imaam. alaaji Aboubacar. alaaji Aboubacar. ibnul imaam. ibnul imaam. alaaji Ahmadou Ba. alaaji Ahmad Ba. mu jàllale ko ci mbooloo mi yëpp. mu jàllale ko ci mbooloo mi yëpp. muqaddam yi. muqaddam yi. taalibe yi. taalibe yi. président daayira yi. président daayira yi. jaar ci loxo ndeyjooram. jaar ci loxo ndeyjooram. imaam alhaaji Maas Aliou Ba al imaam alhaaji Maas Aliou jaar ci loxoom jaar ci loxoom Cheikh Moustapha Bachir Ba Cheikh Moustapha jaar ci loxoom jaar ci loxoom Malick Wilane coordonnateur national Malick Wilane coordonnateur national nuyoo yi jëm ci borom ndomba tànk yi nuyoo yi nga xam ne moo jëm ci borom ndomba tànk yi commencé commencé ci bi nga xam ne moo yilif suuf si ñu nekk. sous préfet. sous préfet. préfet. préfet. gouverneur. ministre de l'intérieur. premier ministre. président de la république. loolu yëpp ñu teg ko ci loxo sunu maire. mi nga xam ne kenn la ci ñi doon ñi ci la bokk. mbokk yi nuyu naa mu ne mbokk yi nuyu na gërëm naa ñëpp it. gërëm na ñëpp it. lii ku mu doyul. lii ku mu dara dootul la doy. dara dootul la doy. tubaab ba ñëwoon ci ziyaare ba ngoti ba. tubaab ba ñëwoon ci ziyaare ba ngoti ba. ca fajar ga mu teg seesam. ca fajar ga mu teg seesam. gis ni xale yi wàccee tant gis ni xale di wàccee tant yi. ba ca mbale ma. ba ca mbale ma. demee ba ca kër ga. bañ demee ba ca kër ga. ne ma ñii ñaata nga leen fay. mu ne ko ñii yow ñaata nga leen fay. ci liggéey bi ci liggéey bi. mu ne ko dara mu ne ko safaan ba sax moo am de mu ne ko safaan ba sax moo am ñoom bi ñuy ñëw ñoo indiwaale luñ ma jox bi ñuy ñëw sax ñoom ñoo indiwaale luñ ma jox mu ne ma lii ñun buñ ko amoon France mu ne ko lii ñun buñ ko amoon France danañ jiite àdduna bi. danañ jiite àdduna bi. ab xale bu jigéen bu jege woon France moo ma ko wax. ab xale bu jege woon France bu jigéen moo ko wax. mu ko fàtte mukk. mu ne loolu du ko fàtte mukk. waxam jooju nag dama ciy xaatir ba tey. mu ne waxam jooju. daf cee xaatir ba tey. waroon naa fekkee lii. waaye waroon naa fekkee lii. loolu ci toog ci naaj wi. li ci itam toog ci toog ci naaj wi. ak ci poussière bi. ak ci poussière bi. te yaa indi li ngay lekk. te yaa indi li ngay lekk. yaa fayal sa bopp. yaa fayal sa bopp paas. te bëggoo ñu wàccee la. te bëggoo it ñu wàccee la. waaye ndono day dëgër. waaye nag ndono day dëgër. Cheikh Alaaji Babou Ba Cheikh Alaaji Babou Ba mu ne lenn rek la la daanul bëgg dégg ci sëriñ bi. mu ne lenn rek la daanul bëgg a dégg ci sëriñ bi mooy Baye Niass. bu ko sëriñ bi waxaan ma ko mu ne nii la ko ma ma ñaanal leen. ma ñaanal leen. ngeen yeewee ko dellu ndu dellu ndukumaan. ngeen yeewee ko dellu ndukumaan. mu ne bii moom bëgg moon di ko dégg ci. mu ne lii daal bëgg moon di ko dégg ci sëriñ rek. sama ronga yi toog mu ne ko loo bëggoon mu ne ko loo bëggoon mu ne toog di liggéey rek mu ne toog di liggéey rek daan naa ko ca tegal mu ne daan na ko ca tegal ci sama xaatir ci xaatiram mu ne góor gi ba fi mu toog ni mu ngi liggéey mu ne góor gi ba fi mu toog ni mu ngi liggéey ndax ku bëggut a wàcc doo wàcc ndax ku bëggut a wàcc doo wàcc da ngay jógee ci lii rek da ngay jógee ci lii rek dem ca lële dem ca lële wa taral jibaala wa taral jibaala taxsibuha taxsibuha jaamidatan jaamidatan wa hiya wa hiya tamurru tamurru marra sahaabi marra sahaabi am na ñoo xam ne fi ñu toog nii. am na ñoo xam ne fi ñu toog nii. ne wàcc nañ. ne wàcc nañ. gas nañ li des ci tool bi. gas nañ li des ci tool bi. ndax xam naa ne alxames dana ñëw. ndax xam naa ne alxames ñëw. am na ñoo xam ne ba fi ñu toog ñu ngi tar. am na ñoo xam ne ba fi ñu toog nii ñu ngi tar. ndax alxames dina ñëw. ndax alxames dina ñëw. te ñu ngi bëgg te dinañ ci toftal leneen. te dinañ ci toftal yeneen. loolu la yàlla wax ne. loolu la yàlla wax ne. da nga gis ayet yi. da gis ayet yi. montagne yi montagne yi. ñu ne sëkk ñu ne sëkk tëkk nga foog ne ña nga fa nga foog ne ña fa fekk ñu ngi xotti àlli mandi fekk ñu ngi xotti àlli mandi ngi di dem taalibe noonu la mel taalibe noonu la mel kenn ku nekk fii kenn ku nekk fii bu ko yàlla laajoon léegi. bu ko yàlla laajoon léegi. ne ko karaama boo bëgg ma jox la léegi balaa ngay jox ne ko karaama boo bëgg ma jox la léegi balaa ngay jox. xam naa ko ma bay tool bi léegi rek ni ñi nit ñi ne. ko ñu gis ñu gis dakkase yi tege rek. ñu bay tool bi léegi gis dakkase yi tege. waa ne maa def karaama googu. waa ji ne maa def karaama googu. ku nekk bu ko mënoon léegi def ko. ku nekk bu ko mënoon léegi def ko. kon ñu ngi sant yàlla bu baax. kon ñu ngi sant yàlla bu baax. tubaab bi bu fekkee woon lii. tubaab bi bu fekkee woon lii. te loolu moom lenn rek la gis. te loolu lenn rek la gis. ñun li ñu yàlla jox ëpp na loolu. ñun li ñu yàlla jox ëpp na loolu. mooy lii. mooy lii. ñu ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax. li ma tax a naajee. li ko tax a naajee mu ne. kenn ci kilifa yi. kenn ci kilifa ci ñi réew mi dénk kaaraange réew mi. ci ñi réew mi dénk kaaraange réew mi. ci ñu mag ña. ci ñu mag ña. moo fa ñëwoon léegi. moo fa ñëwoon léegi. yàlla xam na ne. yàlla xam na ne. dama ne ko gaawal. daf ne ko gaawal. agsi. agsi bi mu agsee it mën na ko gaawal bi mu agsee na ko gaawal mën na ko ndax damay dem ca tool ya ndax damay dem ca tool ya waxoon kan la ngeen ne déedéet waxoon kan la ñu ko déedéet yéen a ma gënal ñëpp ñun ñoo ko gënal ñëpp wallaahi barke Baye Niass wallaahi a ma gënal léppit ñoo ko gënal léppit ñuy dundal. lii moo ñuy dundal. du tool bi gerte giñ ciy jëlee. déedéet tool bi gerte giñ ciy jëlee déedéet. daje bii ñu daje. daje bii ñu daje. xale yu ndaw yi ma doon nuyu ku ne ma laaj la noo tudd. xale yu ndaw yi ko doon nuyu ku ne ma laaj la noo tudd foo dëkk. kii ne ma maa ngi jógee ba Daaru Nanjige. doomu Kebaa Diop kii ne ko maa ngi jógee ba Daaru Nanjige doomu Kebaa Diop. xale bu ndaw bi xale bu ndaw bi. waaw lii bu ma doyut. waaye lii bu ko doyut. ma di ko wattee mu di ko wattee borom ndombo tànk borom ndombo tànk bu ñu naan moom lañ dénk nangam kaaraange réew mi moom ñu naan ko moom lañ dénk nangam kaaraange réew mi wattee ko gune gi jógee daaru nanji mu boo wattee ko gune gi jëm daa jógee daaru nanji gi la gën a gaaw ci li koy indi la gën a gaaw ci li koy indi yaakaar naa fas lay war a doon yaakaar naa ne fas lay war a doon ndem warun mbaam ndem warun mbaam ndem doxut ndem doxut waaw kii yàlla du ma ko laaj waaye kii yàlla du ma ko laaj yàlla du ma laaj bu kerogee yàlla du ko ko laaj bu kerogee ba pare nag doon li ci taxaw téye parasol ba pare nag doon li ci téye parasol gi te man gasuma taruma te moom gasu tarut xamul lu ko indi xamul lu ko indi xoolal ni mu toll xoolal ni mu toll gas na tar na gas na tar ma toog gasuma taruma mu toog gasu tarut mu téyel ma parasol gi mu téyel ko parasol ndax bu ma naaj laal ndax bu ko naaj laal waaw man man waruma am ngor waaye mom warut am ngor mune waruma bëgg lu baax ma waruma bëgg lu baax ba bu ma leen dara ba bu ma leen dara su ma ko defoon maa ngi nax sama bopp su ko defoon mu ne mi ngi nax boppam te bis dina ñëw nag te bis dina ñëw sàmm bu nekk ñu laaj la ñu laaj la sàmm bu nekk ñu laaj la ngeen di def ngeen di def ma ko ci ma ak mu ànd ak yéen nag gërëm leen gërëm leen ñaanal leen ñaanal leen تاولن تاولن تيلن تيلن عندك ين عندك ين ànd ak yéen ànd ak yéen منيح lépp ci lépp في المنشة والمكره في المنشة والمكره منك ين لا منك ين لا إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى تبير تولو شيخ علاج باوبا تبير تولو شيخ علاج باوبا بير تولو شيخ علاج ماسبا بير تولو شيخ علاج ماسبا تولو شيخ علاج سالم بير تولو شيخ علاج سالم تولو شيخ محمد الماحي بير تولو شيخ محمد الماحي تولو شيخ تولو شيخ Ibrahima bi may jébbale ji addiya ji ngeen dajale woon. keroog mu ne bi muy jébbale ji addiya ji dajale woon. ci bi sëriñ bi wootee ne nañ dimbale ñi mbënd mi laal. ci bi sëriñ bi wootee ne nañ dimbale ci ñi mi laal. ba ma yóbboo ci Cheikh Mahi Cissé ba pare. ba mu yóbboo ci Cheikh Mahi Cissé ba pare. dem ci xalifa bi. dafa dem ci xalifa bi. jox ko addiyam. jox ko addiyam. mu nuyu ko rek munoma ne ma kañ nga ñëw mu nuyu ko rek munako ne ko kañ nga ñëw munako ne ko ngodi bala joge ni nii mu ne ko ngodi bala joge ni nii woote bi nga woote woon kérok woote bi nga woote woon keroog waa Ndukumaan waa Ndukumaan jébbale nañ seen addiya jébbale nañ seen addiya mane ko fii ma toog nii. mu fii ma toog nii. boo soxla woon ndox ca Furaat. boo soxla woon ndox ca Furaat. wala ca mer rouge. wala ca mer rouge. wallaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. wallaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. danaa ko indi. danaa ko ko. benn ma wax ku jox kale jox kale ba agsi ci man. wala ma wax ku jox kale ku jox kale ba ma agsi ci man. ma ne ko sëriñ bi loo digle danaa ko def. ko sëriñ billaahi. billaahi. boo soxla woon gaynde. boo soxla woon gaynde. danaa indi gaynde. fay danaa dugg ci park yi. danaa dugg ci parc yi. moo xam dañ koy jaay. moo xam dañ koy jaay. wala ma toj léem yi. wala ma toj léem yi waaye wallaay danaa indi gaynde. waaye wallaay danaa ma ne ko suma demoon ba yi ba ba avion di départ. mu ne ko su demoon ba avion di départ. nga woote nga woote. ma mën a cëppeelu ma mën a cëppeelu danaa cëppeelu ñëw danaa cëppeelu ñëw te doo xam ne damaa cëppeelu ñëw bu ma demoon ba aéroport bu ma demoon ba aéroport nga xam ne dugg ci avion bee ci des nga xam ne dugg ci avion bee ci des sama téléphone sonné sama téléphone sonné ñu ne ma sëriñ bee la soxla ñu ne sëriñ bee la soxla wallaahi lazi laa ilaaha illaa huwa wallaahi lazi laa ma génn saal bi ma génn saal bi ñëw wuy si la ñëw wuy si la te doo xam fu ma jógee te doo xam fu ma joge ko maa ko yenu mu ne ko lii maa ko yenu lu ma takk sama ndigg la lu ma takk ci sama ndigg la wallaahi noonu lay dundee wallaahi noonu lay dundee ma ne ko lépp loo digle danaa ko def ma ne ko lépp loo digle dinaa ko def lépp loo santaane danaa ko def lépp loo santaane dinaa ko def loolu loolu mooy mbir mi loolu yi nag mooy mbir mi def ndigal yi def ndigal yi bàyyi tere yi bàyyi tere yi waaye muñ ko waaye muñ ko muñ def ndigal yi muñ def ndigal yi muñ bàyyi tere yi muñ bàyyi tere yi jàmm rek lañ ci jëlee jàmm rek lañ ciy diggal jëlee leen di gërëm bu baax mu ne mu ngi ñuy gërëm bu baax lu ngeen bëgg ma def danaa ko def lu ñu bëgg mu def dina ko def lu ngeen bëgg ma dem danaa fa dem lu dana fa dem lu ngeen soxla danaa ci def lu ma mënut lu ngeen soxla dina def lu mënut ci li feeñ ak ci li nëbbu nag ci li feeñ ak ci li nëbbu nag li ngeen xam ak lu ngeen xamul li ngeen xam ak lu ngeen xamul du ma leen wattee daara mu ne duñu wattee daara du ma leen jëndee daara duñu jëndee rus naa ko mu ne rus na ko rus naa loolu suur naa loolu. mu ne rus na ko suur na ko. yéen laa am. ñu te doy ma. te doy nañu. nit dana am lu ko doyut. am lu man yéen laa am. mu ne moom ñun laa te doy ngeen ma. te doy nañu. ni ngeen mel gërëm naa ko. niñ mel it mu ko. ni ngeen mel sant naa. niñ mel sant naa. billaay ñeewu ma kenn. mu ne billaay ñeewu kenn. ci mbooloo mu mu àndal. ci mbooloo mi mu àndal. mosuma gis menn mbooloo. mu ne mosu gis benn mbooloo. ma mébét. mu mébét yéen ñii. yéen ñii ngeen mel ni mbooloo ma ne. ngeen mel ni mbooloo mooma. mbooloo mu ma gis rek. mbooloo mu gis rek. mébét naa. mébét na ñu mel ni yéen. ñu mel ni ñun. allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر كل قبائل صراطك المستقيم على مختار راسهم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم والخاتم سبقنا سباق بالحق ولا إلى سراتك المستقيم على عالي قدر ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق القاتم لما سبقنا بالحق بالحق والهادي صراطك المستقيم على عالي قدري ومقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا فجاج يا sëriñ bi mu ne ñu xaar añ bi bu kenn dem ñu añ sëriñ bi mu ne برهام باء وراء ألف ثم ها